alors yaa ngi wax léegi femme politique on a vu de plus en plus euh, les femmes dañuy engagé wu ci li nga xamante ni moo di la politique naka nga ko gis mais dama ko pense que c'est une très bonne nouvelle pour le, la société sénégalaise parce que euh, j'ai vu que beaucoup de femmes avant dañu doon euh, wax ni dañu seexlu politique moo tax duñ ci dugg mhm. am ci ñu bari tamit euh, dañu doon wax que ni ñoom dañu ragal am ci ñu bëri aussi dañu doon wax ni seen responsabilité professionnelle permettre lañu ko mais ñu ngi gis ni de plus en plus les femmes commencent aujourd'hui à prendre leurs responsabilités et maa ngi ñaan yàlla mhm. gis nga élection euh, locale yi ñu jëm en 2027 c'est maintenant qu'il faut commencer à penser à ça et que dans par exemple quatre cinq ans bu ñuy demaat ci des des institutions communales ñu am un de femmes assez suffisant parce que loolu aussi dafay permettre ñu indi une nouveauté dans la scène politique sénégalaise. changer un peu changer un oui. peu renouveler la classe politique mais avec aussi des des des profils différents leneen li nga xam ne tamit euh, dama ko gis mooy jigéen ñi souvent dans tous les postes de responsabilité moo xam ci entreprise yi la ak leneen ak leneen dañuy am ay postes de responsabilité mais bu ñu yegsee si politique bi même su fekkee dañuy politique dañuy nangu nekk ci ginnaaw elle elle elle préfère jouer les seconds rôles kon loolu un autre c'est une autre bataille du euh, xëccoo encore une fois et moi ça ça il faut être audacieux pour man il faut euh, avoir de l'audace pour mhm. il faut avoir du courage mais il faut se dire aussi que euh, li ñu góor man mën ñu nekk ñu en compétition ak ñoom mën nañu ko mhm. kon nag bis bu nga xam ne pour man à compétence égale il faut faire la promotion des femmes parce que loolu aussi dafay permettre à la société mu mën a indi lu bees leneen li nga xam ni tamit am na solo jigéen ñi dañuy xaar ñu proposer leen duñu bëgg dañuy bëgg mais dañuy toog ne xëy na am na sama càmmiñ boo xam ne moo ma gën a placé donc il faut avoir confiance en soi il faut que nit ki gëm boppam mais il faut que ñu xam ni l'histoire du Sénégal doit s'écrire avec les hommes et, et les, les femmes, femmes elle doit s'écrire avec les jeunes et les moins jeunes toutes les composantes de la société sénégalaise kon man en tant que femme si j'ai un conseil à lancer à toutes les femmes qui politique mm-hmm. mooy du yomb Euh, politique métti na euh, mais comme tout dans la vie mais Rien il faut facile, te dire que on peut le faire on doit le faire et que ce siècle est un siècle de femmes ça j'en suis fermement convaincue ah oui ah oui alors en ce jour